mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di ziar ñëpp nag ci màggal gi ñu jóge di ñaan yàlla fekkee ko déwén ak déwén yu bari di ziar ñëpp di leen nuyu di ziar ñëpp te ci bisu tey bi di bisu moom Abdou Aziz Sy Dabakh le 14 waaw mu doon bis boo xam ne 26 ans après euh, Dabakh toujours présent ah ba tey jii mi ngi fi. waaw daf mel ne tey la woon ñëpp di ko jooy ñëpp di ko xalaat naan bu fi nekkoon ak ñoom seen dinañ ci dikk bu baax di nuyu El Hadj Ndiogu Meng saa dinañ nuyu son yi bu hmm, ab laay ah euh, Modou Diouf maa jigéen euh, suka béti ak ñoom Aïcha waa solution yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci taxawaay bi Assane Besere. bu maam Cheikh Ibrahima Fall Omar bun Khattab gi nekk ci kàddu gi ñu fas yéene rek dikk ci actualité wax ay poñ yoo xam ne tey ji fase nañ ci sëgg yéen ñi ànd ak ñun ci solution info TV ak ci solution info yépp tey nag ñu fas yéene rek waxtaanee réew mi ak fi mu toll ak kilifa yi ñu séq ak réew mi ak réew mi ak ni muy doxee dinañ dikk ci Bassirou Diomaye fay mi ñu inculpé lépp lu tegoon sonk ñu teg ko ko dinañ ci dikk wax ci dinañ dikk tey ci bakkan yi faatu ci réew mi di gën di faatu luy mujj sa xasantoo dinañ wax ban taxawaay la opposition bi aussi war a taxaw ci état bi jamono yi lëmbe réew mi ak candidature bu Amadou Ba ak Mame Boye ak euh, li jëm ci kii di Abdoulaye Daouda Diallo ñooñ laa tuddee plan A ak A prime bu APR noonu laa leen tuddee ma comme Sénégal dafa am équipe nationale A ak équipe nationale A prime Amadou Ba mooy A kii di Abdoulaye Diallo doon A prime <laughs> dinañ ci dikk jëm ko toj du ñàkk Aly Ngouille Ndiaye hein moom mooy ba ci A prime yi la bokk hmm? ak euh, Mame Boye du ñàkk ni mooy plan B bi <laughs> waaw xam ne yooyu yëpp dinañ ci dikk mais njëkkee rek ci. bakkan yi faatu ci réew mi bakkan yi faatu ci réew mi li ci mujj mooy ca xasantoo ak a dem ba fa ministre de l'intérieur dem aka la xew ca dëkk ba ak lan moo waral faat gi dégg na nag ay tappalekat génn naan ay maire ba président conseil département bu ko politiser mbir mi am na ñu commencé loolu du dégg li am mooy ab entreprise française moo fa nekkoon di liggéey liggéey boobu mu doon liggéey nag waa dëkk ba la ko doon defloo ñi ëpp ci ñoom waaye waa dëkk ba ñoo yoroon liggéey wi ñoom ñoo daan jël liggéeykat yi ab préfet ñëw fa def fa ñaari weer bi préfet bi ñëwee def fa ñaari weer la chef de village ba yoroon ak waa dëkk ba mu bëgg ko nangu seen loxo soppi mbir mi def ab arrêté bu bees waa dëkk ba bañ na ko bu doon ni ñun li ñu sant suñ diggante ak tubaab yi dañ ko jaaralewul yoon wala xaalis ba dañ kaa détourné wala dañ kaa sàcc wala mu am boo di compté bu boobaa ñu ne li leen dénk attanoo leen ko mënoo leen ko yor bu boobaa nangu ko mën a jaadu mais lan nga ñuy reproché boobi la préfet toog mu ne force reste à la loi man jour bi mbir mi amee dama ko dégg mu wax loolu force ji nga force reste à la boobu li ci tegu mooy ñaari nit ñu far seen bakkan am ñu ci gaañ am ñu téye mu dina leen sax bàyyi ñu dem bi def médecin après la mort ji nga mer googu am ci réew mi ba lu jug rek ay bakkan faatu ci am na ay xale yu doon xëccoog waa gendarmerie suuf fii ci Ngor am ñu ci ñàkkoon seen bakkan mars 2021 ak tey jii lu jege juróom fukk ci ay ndaw ñàkk nañ seen bakkan ci réew mi ci ay manifestation li jaaxal ñëpp nag ci yooyu di am rawatina bi am ci xasantoo en 2016 bu ñuy voté constitution bi dan ne les ressources naturelles appartiennent au peuple maanaam gox bu ne la fay meññee waa gox ba ñoo ko moom kon waa xasantoo bu dee ni ñoom danoo yor seen gox la fay meññee ñu ciy jariñu di ci am ab préfet bu jóge fee doon ab doxandéem boo xam ne buur moo ko fa indi lan lay duggee ci ay mbir ba mbir mi di mujj fii nga dégg ay nit di la ci wax yoo xam ne kenn xamul lu mu doon te li gënoon a jaadu mooy bu mbir mi amee ñu ne préfet bi dàq nañ ko wala démissionné na maanaam à l'instant tey les autorités administratives yi nekk ci diwaan boobu di Kédougou laale ci mbir mi wala ñu seen loxo nekk ci ak ña yor takk deree jiite leen ñu ne dàq na leen wala démissionné na leen parce que problème bi mooy coabitation bi mënatul a ne cohabitation mënatu la ne mooy rey la ba pare ñëw di la jaale mënatu la ne te tey jii li tax ñu naqarlu loolu jël prétexte boobu mooy force reste à la boobu ñu bëgg a jël daf ko way ci réew mi di ko duma waa réew mi te loi bi dafa nekk pour ñëpp la loi elle générale et impersonnelle mais de depuis quelque temps mu mel ne loi boobu ñuy wax force reste à la ñi farul ci nguur gi rek wala ñu am li ñuy bañ rek lay dal ci kaw pourtant ñi far ci nguur gi lu leen neex mën nañ ko wax mën nañ ko def mais gisagun ñun loi bi dal ci seen kaw ci réew mi. bu doon ni bi nag dafa tëddee njaaxaanaay doon ndey ji seex bu boobaa ñun ñu comprendre ni ki ci yoon mënuñu dal ci yow mais bu dee nii ñoo xam ne dañuy manifester ci seen àq ak seen yelleef ci loo xam ne ñoom ñoo ko moom parce que gox yi ñuy wax bokk nañ ci gox yi gën a ñàkk ci réew mi. moo tax ñu tuddewal leen Sénégal oriental gox yooyu la ñuy amas néew silmaxa la muy yelwaan bu mooy waay boo ko mënul yokkal wala nga jox ko sarax ko mais nga bàyyee ko ko mais la mu jotatee yow préfet nga ñëw ni danga koy jël ci seen loxo ci doole teg ko ci force à di nga avant nit ñi faatu man maa ngi dégg ci benn rajo le préfet muy wax loolu ma ne lii de fa mu jëm baaxul di nga baat boobu ñu jël nag depuis deux ans parce que Aly Ngouille Ndiaye nekk na fi ministre de l'intérieur waxuñu ni def na fi wala def fi de Abdoulaye Daouda Diallo nekk na fi ministre de l' intérieur général Pathé Seck Mbaye Ndiaye ci nguuru Macky Sall ba ci Ousmane Ngom yu lu bëri xaw na fi mais depuis deux mille vingt et un ak tey jii li xew ci réew mi ak bakkan yu fi ak manifestation yi fi muy mujj lu jar a xool la lu jar a xool la mais mais aussi lu jar a def ay enquête la balaa maa dee ñu naan ay trouble à l'ordre public balaa maa dee ñu naan ay yàq nañ lii wala toj nañ lii ay entreprise terroriste ak yooyu toj ak yàq kenn du ci ànd waaye rey bàkkan tamit kenn du ci ànd fat bakkan kenn du ci ànd te lii dañ ko war a topp ba mu sës comme ni ñu waree toppee li amoon mars deux mille vingt et hmm? ñu xam ña leen ña faat ña leen faat parce que am na benn image bu ñu doon wax Kër Massar ñu bëri ñu ngi wax ay parcelles bi naan toj ñoon Auchan Kër Massar mais ñu bëri nee na danoo gisoon ak waa oo xam ne bi ñu toj Auchan bi mu ngi yor ngànnaay fetal mais waa ji ba tey ji waxuñu ñu kan la numéro 9 bi ñu mujjee woon fii ci weeru juin bi ba tey ji jàpp ñu wax ñu kan la pourtant ay bakkan rot nan maanaam nit mën a enquêter ci trouble à l'ordre public ak ay li jëm ci atteinte à la sûreté de l'État yooyu yëpp mais nan enquête ci ñii ñooy ñan ñooy faat ak kan moo nekk seen ginnaaw ak kan moo leen jox ndigal ordre yi kan moo leen koy jox bu dee ab préfet da ci laale ñu dàq ko teg ko leen ko war a teg bu dee ab ministre da ci laale ñu dàq ko teg ko liñ ko war a teg wala moom mu démissionné parce que bu ñu waree def enquête enquête bi doon une enquête boo xam ne tey dafa maandu mais li gënoon a jekk te gënoon a rafet mooy ñi seq mbir mi yëpp démissionné pour ñu bañ a gêner enquête bi. pour ñu bañ a gêner enquête bi parce que gis nañ fi lu ne ñu ne ay oto boo xam ne tàkk na ca yaraax ay indi indil ñu lu ne ci lii mais ñi ñuy fàtt lu est-ce que lu tax lijjantiwuñ ñi ñuy faat pourtant ñi ñuy faat ay sénégalais lan pourtant ab oto lakk na fii lu ne ñu tudd ko ci loolu nag moo ñuy indi ci liggéeyu ministre de l'intérieur est-ce que liggéeyam dafa war a nekk rek repression wala dara mais ministre de l'intérieur comme ni ko Antoine waxee bi mu demee mooy autorité yi ñuy affecté ci diwaan yi danoo war a fexe di waxtaan ak déggook ña ñuy fekki mais loolu moo jaadu mais ñu jël seen autorité ñoom def ko ngànnaay wala ñu def ko doole joo xam ne dañuy jàkkaarloog askan ya ñu fekki alors que ñoom askan ya ñu fekk fa lañ fekk ñoo ko moom ressource yoo fa ne ñoom ñoo ko moom. entreprise yoo fa ne dañ leen war di jariñ ci repré ci responsabilité sociétale d'entreprise kon tey jii man dama doon xaar ay démission wala mu am ñoo xam ne dañ leen dàq doog ibbi enquête mais yow mi ñuy tudd wala ñu tuumaal la mais bu dee doonoo ibbi enquête dénk la ko enquête fan lay leere teg ci njabootu ñii ñu far seeni doom buñ fi nangu ay compromis ak ay compromission nan porte plainte parce que tamit daf ci am loo xam ne ji nga boo ko réglé wul tey mooy waral tey ji bu doon réglé lan la xewoon mars deux mille vingt et lu xew juin du xew bu doon na lan la xew ca Ngor la xew xasantoo du fa xew mais nëpp nëppal parce que libéré nan ñin jàppoon léegi dañuy waxtaan léegi ñi dee ñàkk seen bakkan te nit ñi seen kaaraangeeg bakkan ak seen kaaraange si seen alal nguur gi moo leen ko war a gàddul. faluñu leen pour ñu ñuy duma faluñu leen pour ñu ñuy faat faluñu leen pour ñu ñuy teg lii ak lii dañ na leen fal pour ñu ñu loolu lu jar a wax la jamono jooju ay nit di faat bakkan te duñ xam fu muy mujj jamono jooju ñu gis lu doy ci réew mi mooy mbiri Ahmed Cissé ministre de l'intérieur bii ñuy wax mais moo yor culture yi wàllu diine ji moom lañ ko dénk buñ gisee kii sàllalu diine ji dem bay egg ci sunu borom dem bay dingat alxuraan mais loolu est-ce que mënu jul trouble à l'ordre public parce que tey ji askan wi mënoon nañ fipp génn waa ji dañ koy fekk fa mu ne ñu dal ci kawam moom Ahmed Cissé tey est-ce que jaaduwul woon tey li xew ci mbiri Ahmed Cissé war ñoon xaar sax ay plainte Jamra mais ministre de l'intérieur jug ci comme ni muy jugee ci yenn nii bu ay manifestation amee dem jàpp ay nit dem téye ay nit parce que nee nañ bëgguñu ko troubler réew mi mais kàddu yu Ahmed Cissé troubler réew mi lan la ci ministre bi def tey jii ngi nga doon xaar procureur mu def autosaisine woolu ko mais dangay ngay xëy ñu la waa ji génn réew mi te njëkkawul ci tey def na ko defaat mu mel ne tey jii daa am ñu koy aar mu mel ne tey jii moom. dafa bokk ci kuma am ndey ci réew mi parce que am na loo xam ne képp ku ko sañ a wax am na loo yaakaar wala am na koo yaakaar nga ni dëkkoo ci réew mi moom li mu sañ fii ab sénégalais sañu ko ca Gambie parce que moom nee na du sénégalais ab gambien la dugg ci réew mi ku ko neex saaga ku ko neex xas yamatul tax ci téere sunu borom bi mais këru yàlla yi sax ay yàlla ci la jëm di ko waxee ni mu ko neexee loolu épp ab sénégalais sañ na ko feneen. loolu nag des fois ñu def un mauvais procès pour Mame Matar Gueye Mame Matar Gueye du ministre ab ONG rek la jiite mais tey jii ministre bi ñu dénk wàllu diine ji mais c'est le ministre de l'intérieur mais sunu pas-pas ak sunu ngëm mais mooy ki ñu ko war a sàmmal bi màggal gi tàmbali lan lañ doon wax du nangu ko saboté màggal gi tey jii ñi ngi saboté diine ji lan lañ ci wax ñoom <laughs> <laughs> nangu ko saboté màggal gi mais ñi ngi saboté diine ji lan lañ ci wax di nga taxawaay day mat qui peut le plus peut le moins ku mën di jàppi ay nit pour ay entreprise terroriste pour mën di fu nit nekk nga koy jëli mais war nga mën a taxaw ci mbir Ahmed Cissé bi Ahmed Cissé bi tawul sénégalais yi mais ñiy saaga sëriñ si ku mel ne Tange war nga mën ci moom dara war nga mën ci moom dara pourtant man mii bu mu ko defoon samay tànk du laal suuf bu ko keneen defoon tànkam du laal suuf mais da ngay gis koo xam ne rek parce que Ahmed Cissé depuis quelque temps lan lay wax ginnaaw Macky Amadou la maanaam day dóor waa nguur gëmul dara Sonko la fi doon wax démb tey jii parce que bëgg na fu mu wéeru pour di def ay ñaawteefam waaw maanaam nguur gi ñoo warul nangu ay nit di leen mbubboo di def ñaaw ñaawteef comme ni ko. gars yi sonk yi war a bañee maanaam nit jóge fee doon ab xusma ñàpp bu tekkul dara di leen mbubboo pour mën di yàq diine ji wala mi sàllalu ay kilifa mais bu dee nitu sonk yi seen tànk du laal su da leen di jàpp duma leen ñii ñu tëj leen ci kaso bi ñii ñu jël leen ay terroriste bu ko Ahmed Cissé defee wala Tange Tandian def ko bu ko neexee mu toogaat jéggalu ginnaaw ba mu waxee la mu wax mais pourtant bari na ci ay nitu Pastef yi ñuy tuumaal fii danoo jéggalu nit dof dafa jéggalu baaluñu ko keneen ak keneen dafa jéggalu baaluñu ko bari na ci ay ñoo xam ne ñu ngi leen di doxal njekk ci suuf mais mu mënuñu leen baal parce que danoo jàpp ni daa am fu nu laaleeg Pastef kon tey jii ministre de l'intérieur taxawaayam dafa war a mat taxawaayam warul doon rek ñu ne kat de manifestation am na jàpp na diw jàpp nañ diw diw faatu na non noonu kërëb kërëb mu ñëw taxaw def déclaration dem yoonam non c'est karange nit ñi sàmm ko bokk na ci sàmmal leen seen pas-pas ak seen ngëm-ngëm te ñu lijjanti ñi faatu ci réew mi parce que depuis mars deux mille vingt et ak tey jii liy faatu ci réew mi dafa bari amul manifestation bi am te buñ paree du fa dégg ay bakkan yu rot ñi ngi wax ay juin deux mille vingt trois di wax mars vingt et mais bi ñuy waaj législative yi mais am na ñu faatu woon ñooñee ñan ku leen faat. ba tey jii mun ñu ñu ngi wax diw moo yàq lii diw moo wax lii mais ki rey kan la loolu nañ ko lijjanti kon loolu dafa laaj taxawaay mais aussi dafa laaj ñu gën a sàmm sénégalais yi sàmm leen seen alal sénégalais yi li ñuy dund métti na métti goo xam ne rawatina ñi nekk ci est réew mi ay Tamba ak ay Kédougou ñooñu ku leen fa fekkul dimbaliwu leen bul far seeni doom looloo tax mi ONG yi di organisation non gouvernementale yi di société civile di ña dëkk sa diwaan ba waruñu rek bàyyi mbir mi yam fii danoo war a porter plante bu procureur deful autosaisine wala def ñu enquête ñoom ñu topp mbir ba mu sës bu dee yoon Sénégal mënuñ ci dara yoonu bitim réew taxaw ci mais dafa doy ci sénégale yu faatu dafa doy dafa doy dafa commencé di ëpp léegi mu manifestation léegi lu da ngay dégg ñu ne non bi ñu jàppee Sonko xale yi génnuñu. bi ñu jàppee mais bu duñ génn parce que liy faat tudd mujj fenn kenn xamul fu mu jëm en 2014 en 2021 bi ne li dañu bi ne mbiri Adji Sarr am na ñu ci faat dañu woon dañuy ibbi commission commission boobu ak maître Sidiki Kaba fu mu mujj ak ñun fu mu mujj ak ñun te dama daan gis ci réew yuy développé maanaam réew yi am démocratie réew yi am sañ-sañ bu ñu fa mësaan fat ay nit da ngay gis ñun képp ko chaîne bi mii takk der yi mii préfet yi mii ministre de l'intérieur ñoom ñëppay démissionné pour bàyyi enquête bi ñu enquête ñëpp mais fii médecin après la mort ay nit faatu nan <laughs> gars yi layam layami dem egg jaale wax wax ju neex dem seen yoon jeex na daal léegi ñi dee nag ak seeni mbokk bu dee sénégalais yi nii lañ ko bëggee mu continuer warul continuer ñun sunu réew mi dañ fay juddoo pour di fi dund mais juddoo wuñ fi pour di fi deewee léegi jamono jooju ñiy bàyyi loolu lépp di jàll ñu ñëw ci wàllu politique ak Bassirou Diomaye fay mi ñu tegaat ñaareelu daan ginnaaw. ban ne dafa ñàkk a teggin magistrat yi woo ko mu def juróom-benn weer wala léegi mu jege juróom-benn weer ci loxo yoon ndax ca koor ga lañ ko jàppoon bi ñu jàppee jomaay ñu bari jàpp ni li ñu ko jàppee dafa oyof mais mu doon secretaire général bu Pastef maanaam mooy tofoy Ousmane sonk mooy numéro 2 bu Pastef ñu ciy ñaan njekk lu ne ñu dox ko ci mais jàpp jomaay mënoo ci jàngat lu dul une détention politique loolu nga ci mën a jàng mooy jomaay dafa am sam benn xarit boo xam ne bi njëkkee jàpp jomaay daf na ma Omar est-ce que xam nga ni jomaay dañ ko jàpp pour pousser Sonko mu dem dialogue <laughs> non ma ne ko lu tax. mu ne non il faut que waa Pastef am lu ñu bàyyi maanaam dem wuy ji jaloog bi pour que ay jomaay ak yeneen détenu politique mën a libre maanaam jomaay moyen de centage la bu ñu doon def ci Sonko mu wax ma loolu après da nga ciy bàyyi xel ñu dem ba benn jamono mbir mi di dem di dem ba nuru loolu heure bu nee dañ koy bàyyi duñ ko bàyyi ba ñi jàppee Ousmane Sonko ñi jàpp Ousmane Sonko ñuy wax waxi plan B ñi ciy tudd Jamaay di ci tudd Birame Souleye di ci tudd keneen ak keneen lu tax may des des ci turu Birame Souleye Birame Souleye liñ koy tuumaal moo gën a garaaw foofu li ñuy tuumaay Jamaay. pour pourquoi Birame Souleye mën a génn nekk ci dëkk bi ñu ne jéggalu na am déet parce que Birame Souleye li mu wax ñëpp dégg nañ ko ñëpp gis nañ ko te kenn rafetluwu ko mais pourtant biram Souleye dañ ko bàyyi mu kon ne nekk ci yitteem ñu ne président moo ko baal parce que dafa ñaan njekk kërëb kërëb ku mën a bàyyi biram Souleye lan ngay téye basiru Diomaye Faye ci kaso bi ci koo xam ne dafa bind xalaatam ak li mu gëm ci koo xam ne mosuñu gis mu woote appel à l'insurrection ki koo xam ne mosuñu gis mu woote fitna wala bokk ñu ñu dajaloo fitna am fa ñu ne loxoy jomaay ma nga ca kooku du Bassirou Diomaye Faye ji nga waa Pastef yi bari na ci ñoo xam ne xam lu nga ko doon reproché lu tax bu nu woowee pro maanaam pro moi <laughs> Pastef la Ousmane Sonko du leen gis dem na ba bi ñuy toj vitre Ousmane Sonko bi ci jamono boobu ñu leen am ñu leen yi jiñ ne sax ñoom danoo yolleeku dem seen yoon pour wan kan mooy Bassirou Diomaye Faye démb wax naa ko ci tele bi benn jour ma laaj ko na ko li booy di wax nii jëme ci yow kërëb kërëb ah nga toog fi nga toog yow kenn du la gis kenn du la dégg di ko tooñ ak yooyu quoi mu wax wax boo xam ne waxu pas-pas la na ma ñiy faatu Omar wala dara woote nit ñi di dee wala nga woote nit ñi di ci gaañ nit ñi ñàkk seen alal mën a responsable boobu man attanuma ko ndax maa ngi sóor sa diggante ak sama borom bi moo xeloo man ko waaye Diomaye bàyyil affaire oustaz yooyu te wax ci. lii nga mun a non après j'ai senti que ki wax ni ko am imaan la te bari na lu muy bàyyi xel te musul sóoraale ni moom dinañ ko jàpp parce que dafa jàpp ni loxoom nekkul ci dara te takkul ci dara kooku bu demee ba instruction war a jege juróom-benn weer ñi xalaat ni dañ koy bàyyi ñu wéy di ko téye pour ay calcul politique ñun noonu lañ ko mën a jàppe des fois ñun dañuy dañuy inquiété les politiques man à chaque fois dama koy wax na leen bàyyi. ñu def seen yëfi politique politiciens yi na leen bàyyi ñu def seen yëfi politique waaye li gars yi warta nangu mooy ñii di justice bi di leen defal benn liggéey bi justice bi daa am fu mu war a yem di nga bu politiciens yi mbëkkante ne justice bi taxaw fee seetaan loolu da mbiri jiwaay doo ci mën a génnee politique jël lépp loo xam ne yanoon nañ ko Ousmane Sonko yan ko ko day tax nit ñi di douter ci crédibilité bu justice day tax nit ñi di ci douter di laaj lan moo xew est-ce que lii jaadu na est-ce que lii war na am parce que Pastef war na am candidat mais mbiru sunu borom dafa dépassé Diomaye dépassé Ousmane Sonko te Pastef ba tey ji la ñuy wax seen plan A ba Z bi Sonko la léegi pourquoi Diomaye war a fay bor bu mu leblewul moom ak yenn détenu politique yi parce que dafa dem ba mel ne jege Ousmane Sonko bàkkaar la kon loolu lu ñu war a xoolaat la mais lu ñu war a bàyyi xel la mais lu ñu bari war a mettitlu la mooy Bassirou Diomaye Faye dafa am doom am njaboot yor ay tout tànk amal njariñ Sénégal parce que mi ngi liggéey ci impôt et domaine amal njariñ Sénégal nga jël ko téye ko ci kaso bi pour combien de temps ba kañ loolu tax tey jii opposition bi laay waxal ci jamono joo xam ne nguur gi mu ngi fi nekk di wax équipe nationale A A bi Amadou Ba A prime Abdoulaye Daouda Diallo B bi Mame mooy B bi <laughs> man lool laa leen jàppe loolu nag am nañ ci droit def seen calcul politique mais opposition waruñu ye ne yàcc bàyyeeg terrain bi kii di Amadou Ba ak waa Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall mooy ñoom tamit war nañ teg dara. ba occuper débat politique bi parce que nag dafa mel ne Sonko rek moo fi nekkoon Sonko rek moo fi nekkoon boo xoolee sonkorisation bi ci stade bi ak taxawaay bi Sonko namm nan la mais jamono jooju xale yi di son sonkoriser mais jamono jooju lan lan maquillé Amadou Ba bu may wax maquillé en ah, Macky Macky Sall léegi nag Amadou Ba am na légitimité pour mën a doon candidat. pour mën a doon ki mu doon mën a awma ci problème parce que day uti te day dàq ni ñëpp te war na mën a défendre seen bilan mais fi ñu ci Macky Sall ci kàddu yu mu waxoon mooy xam naa ni ñi gagné élection loolu nag dafa laaj taxawaay ngir mën a jàkkaarloog Amadou Ba pour mën jàkkaarloog Amadou Ba warul nekk di ko xas wala di ko lii wala lii problème bi mooy une opposition dafa war a teg fexe ba. xale yi dem bindu ji c'est bien nekk ci stade yi sonko sonko mais dem bindu ñi ñi bindu ji dem jëli seeni carte fa séenee dem vote ji parce que daas fanaanal ren di day bette beneen bi ci topp mooy sexe ba élection yi jaar yoon te am ca waxtu wan ko namee parce que ñu bari danoo foog ni Sonko ak Pastef ñoo am problème na am problème mi ngi fa mais nguur gi tey am nañ problème de parce que bu ñu demee bay woote wallu ci ay Medina Gunaas ak ñoomin seen di woote ci këru diine yi ci coow li am biir euh, APR wala bi biir Benno ça veut dire que c'est une tey jii bu fi Sonko nekkoon gëm naa ni opposition bi duñ tumuraanke mais nag absence du Sonko noonu day wane ni nag opposition bi dara nekku fi parce que mën bu ma gisee depuis une semaine Amadou Ba di équiper médias yi opposition bi teguñu benn acte teguñu benn acte politique pour dindi loolu y problème mooy tey jii waroon na fekk en 2011 sànq maa ngi wax ci ministre de l'intérieur mais 2011 mais danoo taxawoon ci ni ministre de l'intérieur du jiite élection yi. ba am ci ndam ban jox ko Cheikh Gueye nangu ko ci Ousmane Ngom mais ci côté boobu lan la opposition bi def ci ministre de l'intérieur boo xam ne dafa ñëw tas parti yamul ci tas parti fépp fu opposition war a def conférence de presse wala sitting ba ci investiture mu ñëw tas ko fépp foo xam ne opposition war na fa manifester mu aye ko mayetu leen dara sur le plan politique mais kooku opposition bi bëgg continuer di ko bàyyi di dem ak moom élection 2024 mais risque la parce que moom wane na ni PT ba PT boobu mu wane moom moom maanaam amatu ci fu muy yem. tas parti ku mu bëgg a jàpp jàpp la ah yemuñu ci jàpp bi mais opposition bi du manifestation pacifique du sitting du conférence de presse du dara du dara lu mën a organiser ti barikaat ba ca kër son ko ak yeneen ak yeneen boo génnee ci dëkk bi ñu mel ne ku nekk ci couvre-feu wala état d'urgence léegi ministre de l'intérieur boobu opposition bi war a dal xel dal xel gu toll ni ànd ak moom mu leen di organiser élection moom ak ay services am ak li ñu dund ci local yi ak direction des élections dund ko ci législative yi pour man taxawaayu opposition bi dafa war doon te bu bu Sonko génnoon wala mu taxaw loolu day doon un combat am mais opposition bi dafa mel ni dañoo réer xamatuñu fa la ñuy xeex ak lan la ñuy xeex ak fa lañuy taxaw mais aussi gars yi napp leen napp leen ba mënatul dara tey jii bu du woon jeunes yi ci estade yi di sonkoriser da ngay jàpp ni opposition amul Sénégal. da ngay xool ay F24 manque d'inspiration ay tëgg ay pot ay ayub jamono yi booy nekk ci stade jël beneen étape yow nga leen di delloo ginnaaw Yewwi Askan Wi ana ñu ana Déthié on l'entend plus ana keneen ak keneen te tey jii pour man dem élection loolu da ci bokk xale yi dem jëli seen carte yi mais aussi ñu fexe ba organiser ku maandu. organiser élection yu ñu jëm loolu dafa bokk ci combat yi opposition war a taxaw mais aussi tamit li jëm ci feem yi ñuy teg plan A plan B ko ku mën a doon loolu moom seen i calcul politique la loolu duma leen wax nu ngi koy defee nu mu war a taxawee mais pour ñu am élection yu jaar yoon transparente il faut ñu dénk ko ñi maandu mais mu am une opposition boo xam ne tamit dañuy exigent jëm ci fiche électorale beeg ñoom seen mais conditions yi ma gis bu ñu ci demee élection ak a yi waa benn Bennoo di def fu ne ñu teg fa candidat Mame Boye ca Casamance Aly ca Jolof Amadou Ba Dakar Abdoulaye Daouda Diallo ca Fouta ñooñ ñëpp tey ji ñoom ñi ngi teg seen i carte te xam nañ liñ bëgg te xam nañ fi ñu jëm mais j'ai l'impression que opposition bi xamuñu fu ñu jëm mbokk yi kon ñu yam fii di gërëm ñëpp di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm El moo du Diouf di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp defuñu ko pour dingat kenn wala dal ci kaw kenn waaye nag comme réew mi ñoo ko bokk te dañ ko war a waxtaanee te nag di ko def te kenn du ko wax amul fenn kon yàlla nu yàlla defal jàmm ak xewal ak sutura ba beneen yoon incha allah.